yaa baax yaa gën yaa riis l'homme gentil l'homme idéal mais dama la billahi yaa baax mais je te sers du café non non non ça va demis en prix demis en prix café du sa yëf non du sama yëf alors noo def mais baaw nam naa la ça va mais maa ngi di sant yàlla na nga tàngaay bi

voisin. voisin. oui le voisin. le voisin. waaw moom moo fëgg dem suuf di may na ma ñoo ko bàyyi pëgg pëgg ma jug. nekk da jaba ji mo nek en état am problème problème bu feebar dama joy dem il il il pleure avec la ma ma jàkkaarloog femme bi muy séné te Omar bo seetlu na du baax dimbale ko ngir yalla ana femme bi. femme bi mi mi mi ngi këram. amul soxla ko yóbbu hôpital ndax feebar man nak yow la yaakaar. nga jàppal ko ataaya tax yow dañ la wax man je suis un distributeur automatique yow yow ñoo ko bàyyi lan moo tax am problème ci dëkk bi nga ni ko andil ma ñëw ñu dem jox ko Omar yow dañ la wax man dama yor fii je suis tellement liquide ku ñëw rek ma jox ah, Omar tamit yaakaar mu yaakaar ma fort te ñëpp dañoo bàyyi ñëpp di jàppal la gis nga xool soo ko mënoon du ma ko wax baaw dimbali ko rek ordonnance boo yéex rek mi ngi ci biir ah. lépp nga ci biir yow soxla moo rafet yow ñu ngi dimbali ñëpp ci dëkk bii ma takk sama bët bii fi fi ma yónnee yëpp ni ma demal fii demal fii demal fii takk sama bët jàpp ci rek mu may xaar nag papa tey de kontaan naa hmm. ah tey moom ku la gis xam ne yaram bi xaw na feex tuuti waaw nii de moom alhamdulilah sant naa bu baax a baax ni ngeen may toppatoo rek tax ma wér ni nii moom sant naa bu baax a baax a yéen a ngi may toppatoo dama jox samay garab may naan seetaan neen ma benn yoon kon nag jërëjëf yal neen yàlla fay. ah papa loolu rek moo ñu war yow tamit loolu rek moo ñu war si yow allah man moom kontaan naa trop. alhamdulilah ndax ah, Fane dama kenn ku la fiy seet xanaa amul kenn kuy bëgganteel. <laughs> papa man yow laay bëgganteel man yow laa man mom bëgguma jëkkër ndax suma amé amee jëkkër dinaa dem bàyyi la fi té loolu bëgguma ko suma démé kan mo lay topato suma démon sax bay bëggante ki may bëgg mom mo may fekk ci yàlla na ma sa baña am jëkkër <laughs> ay duma ma sa dem la Omar yo mi la Wainak mu takk la waye nak sey nang koy takke sa aras ku nekk kala yalla bolé la waaye na xale yi bu ñuy bëggante doo yëg doo tin dañuy génn sa àll ba xool bëgg rek ñu ko takk waaye man bu doon sama sago tey yow mii yaay doon soxna soxnaam waaye nag jaamu pexem yàlla ak dogalam. papa lu jot rek yomb incha allah man moom yàkkamti wu ma sëy benn yoon. incha dëgg la yàlla baax na. baax na xam naa nag naa la nettali tuuti si loo xam Lindor ku baax la. ku ma yërëm la ku ma bëgg la gis nga turandoom bi ma ko tuddee baax ku mu baax moo tax tudde nañ ko sax ba tudde ko fas moo tax jël na juróom-ñaari jikko si turandoom baax na yërëm na ma te bëgg na ma te Omar wax bu bu gawul baax de. kon yow joxe nga engagement ba pare. non dama ni ko damay def xam naa loolu da koy def. ma denc. non denc am na foo ma denc dimbali ma wax ma ko. man xool li ma mel. ah yaa ma changé di ku ma xamoon loo ma xamoon bële bu yàgg ba mais ko. waaw yor ko yoroon bi la doo si jot <laughs> dimbali ma rek. waaw léegi d'accord teel bi ñaata la ordonnance bi su ma ko xaymaa cent cinquante mille laa laa ci kaw. waaw cent cinquante mille moom gis naa ko ci kaw moom. Ah. waaw ordonnance dañuy bind ci léegi naa la yónnee xaaral naa la jox cent cinquante mille. nga ne chèque laa ko mën def. Omar non chèque laa koy man nga ma ay ay banque dem foofu di rang yooyu moom dëgg yàlla dama ko bàyyi. teel a yeewu. donc sa dër mais mais dafa nàkk noo ko bàyyi fii société waaw man je suis pas man xam naa la waaw man chèque laa la mën a jox nga dem banque ñu mais c'est du pareil man xam naa la yow boo yoroo boo ko yoroo eh, fii dafa eh, yow doo doxee doo doxee mel livre yow automatiquement ma la yàlla xam naa la. non <laughs> baax. ñoo ko bàyyi ñoo ko bàyyi ñoo ko bàyyi. yaa yaa baax yaa gore. ñoo ko bul yor taxawal noonu. <laughs> demi nga wax. ah laa wax. six cent. dégg nga dégg nga loolu la. yaa baax. waaw. dawal nga régler ah, nag des na sama paas. koy jëw. mais joxuma la sax. non cinquante mille bi la. waaw lii pour wax ma jox ko. waaw xoolal Abdou Diarra kër vingt mille passe l'hôpital yi tout près dem. ci raas démb dégg raas démb bu sëriñ bi ñu bàcc ndongoy raas Omar man nañu baawoo ba fi ñëwoon dëkk bi tey. wuy ma naxay. ma mu président du ma si président yi def si si si si monsieur le maire damay génn ñibbi. kon baax na yabaax. yabaax. ñu gën di sore yabaax aw. ma ko bàyyi yàlla moo ñu boole mais ce gars-là kii est liggéeyu ma. Bé je croyais que t'étais fâché contre moi. pourquoi fâché lan la. yow sama yaay yëgoon ne dafa demoon seeti sa frère bi xaw ma lan la fa wax ba sa belle-sœur bi di ma woo téléphone amul lu ma waxul. yëg naa ko. ndax Omar woon mais man su su jéggalu di am yow mi laay jéggalu ndax amul droit jabaram di lawo, woo nah, ndax koko ko ak mom mom nak dama mis ay waxam dama mis leppam xamna ko bu baax ñun ñoo yarando presque ay cheikh la do sama papa lu ma jëndalon de ko doon jëndal motax ay waxam legui defatuma dara lepp dama ko gérer deug la nak yalla mo bind ay nit yamale wul yow xam nga ni man ñakuma jom bëgg na liggéey mm-hmm. dama ko gisagul wala nit dig ma liggéey ma dem ba fofu ta duma am luma luma waxon mais dama koy santé yalla man kay leen rek la lay ñaan bu len tont bul bul bul wax dara ndax su ma seetul woon mboq damay dem ba këram àq ko mu xam ni yow yaa ma gënal moom ak jabaram billaay walaay. jarul ko man je t'aime te en tout cas xam nga lan laay xaar nga ñëw rek takk bëgg naa la bëgg naa la seel bee te man lu nekk sama kanam lu nar a yàq sama diggante ak yow dinaa ko effacer parce ou... Chérie Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, Les malheureux. Sur le séminaire, pour assurer. C'est pour ah, bientôt Ok, d'accord. Et tu voudrais que... Ok, d'accord. D'accord. Voilà. T'inquiète pas. En voyant, on a le bëggal Mais c'est pour bientôt T'as mis dans 2-3 jours. T'inquiète pas man on a une banque de le boo il il y a des gens te y avait la femme qui était venue elle est vraiment intéressée mm. te Qui ne voudrait même pas te remplacer yo toutes les femmes qui se font belle passe par toi koo assuréwul du jàll chéri dama la koy gérer bu daam bi indisponible man maay indisponible sama bureau disponible au sa institut déggoo ma mm. gérer la sa assurance chéri je t'aime tu sais il y a des 8 dire chaque hein, mois est-ce que tu sais une chose. c'est vrai. Je <laughs> naa sama parce que je n'aime que toi. yow neel taaja boon ma ni wala yi. neel lee boon ma bonne. tes désirs sont des ordres. Merci. Je vais appeler la dame, mm -hmm. parce qu'elle a laissé toutes ses coordonnées. Mm, à part elle-même, ça, il y a une autre femme. Vous finirez souvent, les gens passent, sur les avis de l'économie. Mais à quand le mariage sama day lenn rek moo koy bégloo lenn rek lay saxal si samay nopp nee na ma bala maa dee dimbali ma rek nga takkal ma Khadija ma ne ko papa lu jot yomb parce que moom jàngal na ma nii moom sama papa lépp lu ma mën a am ci kër suuf ma am liggéey rek yor ko yor la yor sama cousine laa bëgg te billaay su ma amoon lu ma gënal tabaski bii. ñuy jub ci sama kër ngay tabaske nga doon sama jabar doon madame Pao. <laughs> Euh, bee li neex na de mais bi l'argent ne fait pas le bonheur yow ñëw rek nga takk ma. loolu nga gis. loolu laa gis. viens là. ah. fais-moi un câlin. je t'aime. moi aussi je t'aime. mais nak leen rek moma jaxal lutax nga bàyyi endroit yëpp dama ci guy gi te nee

bul fàttali may sa yow tamit. femme leader femme leader man xam nga lu neex ci yow. boo nee nii defal bébé. mais nag dinaa mais dinaa wet mais non yàggul yow tam. yàggul une fois là-bas man. je te donne la garantie. team building. Mm-hmm. sa collègue qui a mis yépp yu nekk dans le monde de l'assurance. nga invité leen ma jox la sama benn résidence nga def sa benn deux jours trois jours nga gàtte leen bu kenn joxe dara c'est moi qui gère loo bëgg ma def. là je te connais. c'est moi. tu es mon mari. <laughs> d'accord je vais gérer ça aujourd'hui même. Mm-hmm. d'accord je gère son dossier. Mm-hmm. après ma réglé ko. kon bàyyi naa ko sa loxo. ok on mange ensemble à la maison waaw incha allah parce que là il faut que ma delluwaat vite fait. ok nga delluwaat vite oui on se capte. d'accord allez venez. Passe à ma ration. oh là c'est doux. ciao. c'est tout ciao Talla. ça c'est ça c'est ma femme.